ndax samay rek dañoo xel ne jëm ci bis man aw ma lu dul géejaway mu su géejaway su jógee ma jóg ku jóg ma jóg barke rasulillahi barke démb rek démb soo gisee ci ëppante presse ñaa bi bu dama doon dama doon sargal ci ëppante presse bi di ma décoré barke Serigne Bamba Mbacke nekkuma ndax boobu damaa jóge terminal ba rek ñëw hmm. guddee barke Serigne Bamba neexuma ndax suma doom la suma rakk la suma jarbaat la mu la jëm ci bis di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd ko yi di ñaan kii di koy gépp jàppale ko ak xale la xale la bu nekk ci yoonam yàlla ko yàlla suturaal te yàlla may ko ndam sedd ko yi yàlla buur bu baax la di ñaanal xale yi nekk géejaway yëpp combat yi ñu jëm la de guerre démb loon def signature loolu moo tax gis démb ci bi te amoon naa yéene dem loolu moo tax dem ma ci signature bi ndax dama jóge ci abonné presse rek ñëw sama néeg ñëw tëdd di jooy ndax ma kee ma bàyyi fee te mu am kàddu yi mu wax ak man ci bi loolu moo tax loolu suma yaram démb allah rabbi may mu fi ak suba wala ginnaaw suba dinañ def émission yàlla baax na waaye sama xol neexul. su ma yàlla xam na ne su ma ñëwee da ngay jooy. wallaahi non mënu ma wax. di ñaanal guy bi mu jëm yàlla na ko yàlla may ndam sedd guy moom it ñoom gàkku xale yi ñoom marle xale yëpp képp ko yeewoo géej way maa ngi lay ñaanal yàlla may la ndam fii lu fi nit mënut a lijjanti amul fii lu fi nit mënut a lijjanti amul lii du dara affaire góor la jombul kenn kasoo jombul kenn jombul kenn jombul kenn di ñaanal ñu fa nekk ñëpp at garde yi yàlla na leen yàlla dafa jàmm tey gis naa ne ma ak accueillir vraiment ñoo ma jox añ barke Serigne Fallou Mbacké garde yi ñoo ma jox añ tey billahi wallahi taala ñoo ma jox añ tey garde yi yi nekk 100 maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm seen liggéey rafet na vraiment ni ma ak accueillir tey sama xol dafa sedd daal ma xam ne quelqu'un laa ci réew mi loolu yàllaa ko def du ci yàlla la fu ma dem ñu ne ma nga nee loolu du ci man yàlla la yàlla la du ci man waaye nag yàlla buur bu baax la maa ngi leen di ñaan ña fa nekk ñëpp yàlla nañ fa yàlla jëlee ndax tey daal bi ma demee su ma yaram dafa daw dafa nekk ñëpp maa ngi leen di ñaanal ñu génn jàmm sama xol neexul daal dañ ko yemale fii beneen yoon Fatma su doon keneen la amul booy bi amul problème garaawul waaye ñi ma amul problème ñoo ma jege nekk sumay nit nit jege ma lool laay su ma booy la kat amul problème su may voyage moo may yóbbu su may ñëw moo may jël si voilà xañ na nag kàddu yu jóg moo ñaaw waaye doy na waar déggante nañu avant bi problème yi am avant déggante nañu ah non yàlla baax na yàlla buur bu baax la nan bàyyi ndeysaan dafa tudd jee doom kon ni mu wax rek nee na comme que ñoom ñi mu amal problème ay xaritam lañ di ñaan yàlla rek jàmma ah, lu jàmm jàmm ko gën parce que tamit liiru tey wax dëgg yàlla am na lu ko métti man maa ngi soo gis lii du jaan tey di tuur ay xéewal yoo xamante ni di jooy bay xëxët kon nga xam ne lii métti na ko mais en tout cas ñi ngi jaajëfal mbokki internet yëpp tamit waaye ki daa yàlla na yàlla def lu jàmm hmm. ñoom fii sa bàll ñoom euh, Jackson sama doom gàkko deux mi war a bëree levée après moom it ak ñoom buuse ñoom ñëpp ci war a bëree. tournoi di ah asalaamaaleykum mbokki tournoi di di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info ak seen làmb di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yëpp di nuyu sama sëriñ notre responsable moral bu daati Moustarchidine dinoon Moustarchidaty di nuyu kilifa diine yëpp ah kon niñ ko defee woon sànq ci jos moom lañ koy defaatee ci fii ci xamante ne moom mooy ci liiru jaan nday bu baax a baax nga xamante ni fan yi nag dafa tàng moom monsieur la fukki waaye daal lépp benn la dañ ko bàyyi rek mu ngi toog nee dafa feebar monsieur ñëwal bokk ah, ah mais en tout cas tey nag yàgg nañ fi loolu ah Ndeye Mbacke dañ fi yàgg trop lépp nag pour yalmin bi yalmin bi liiru l'international monument l'international magu Balla Gaye 2 papay Balla Gaye 2 gannaaw na ba ñu toogee ba sonn gisuñu ko waroon dem koo fekk sax fi nga xamante ne moom mooy ca Samet muy liiru jaan ndax ki nga xamante ne moom mooy rakkam te Maguette Seck nekk ci tolof tolof di ko ñaanal yàlla mu génn seeg jàmm ak salaam ak fan yi nag wax dëgg yàlla nag géejewaay nag <laughs> liiru fan yi cat da koo topp borom déclaration bu rëy bi te instant yii nag neexu de yàlla min bii afeeña wala l'international. jërëjëf Serigne Touba jaram moom Cheikh Rahma Fall Fatma Dia maa ngi lay fay mm, di nuyu waa Géejawaay gépp euh, di ñaan yàlla jàmm sax Sénégal di jaale. Baara Gueye King Owel sëram bi génn àdduna Baara Gueye muy ku baax famille Pape Baara Gueye ku ci mel ni Cheikh Mbacke Gueye mm, Amet Naar euh, ak euh, son boy bi seen frère bi ñoo ngi leen di jaale bu baax a baax a baax a baax a baax a baax famille Pape Baara Gueye gépp ñoo ngi leen di jaale ndax ay doomu géeja Géejawaay lan vraiment nekk ñu baax ba def ay social ndax yàggul dara am naa sama benn booy bu nekkoon fii feebar bi ma demee wax nañ ci teguñu ci baat ñoo ko jël en charge def ci la ca war maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm seen sœur bi wàññeeku yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko sëriñ Touba teeru yàlla na giseek baayam ba àjjana muy Pape Bara Gueye bu mag yàlla na giseeg moom àjjana seen sœur bii wàññeeku di ñaanal borom këram xale la di ko ñaanal yàlla defal ko xolu muñ ndax lu war a am day am kenn mun ci dara yàllaa ko dogal waaw ñoo ngi koy ñaanal daal yàlla ko yàlla xaare àjjana seen sœur bi di leen jaale ñoom ñëpp famille Pape Bara Gueye mm-hmm. di nuyu waa Guédiawaye kenn nag ku sama soppee nekk rek maa ngi lay nuyu di la ziar wu diaspora bi Guédiawaye fépp kuy bëggee liiru jaan rek maa ngi lay ziar di la bëggee bu baax a baax a baax a baax baax baax mm-hmm. voilà sa xol neexul di nuyu sama euh, ministre des sports bu bees bi mm-hmm. euh, Lat di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ministère bee ñu ko dénk yàlla na ci aw gañe ay ndombay tànk yàlla na ci gañe ay coupe coupe de Afrique coupe de monde ba coupe de la ligue yàlla na ko ci gañe ci ayam gi muy Lat Diop ndax vraiment dafa nekk géejawaay di def ay sociale di jàppale xale yi mi ngi ci hôpital yi mi ngi ci football bi mi ngi ci làmb ji mi ngi ci fépp yàlla na ko yàlla defal jàmm muy Lat Diop mooy sunu ministre des sports géejaway dëkk géejaway teg ci nag sunu doom la dañ koy sagoo sunu tiitar la sunu ndam la di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di ñaanal Aliou Sall sama waa ji di ko ñaanal yàlla da ko def yàlla defal jàmm Aliou Sall sama waay la sama xarit la ah, ah kii tamit nu mu tudd ah, maali gàkko ñoo ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ndax mi ngi jàppale xale yi ku ci am combat. di wax Ahmed Aïdara tam di ko ñaan tamit mu jàppale xale yi ndax moom la yàlla teg ndax xale yi dañoo am ay bis yu mag ñu jëm ci bis yi. di leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm. di leen ziar bu wér a wér a wér a waaw. ñu gis depuis ce matin ñu ngi lay xaaral. Ah. heure bu ñu nekkee nga maay ñëw ndax sama rakk moo nekk ci tolof tolof ñu gis ne liiru tey moom su xol neexul ndax dafa mel ni cat nag nday bàkke da ko topp de si biir géejawaay dafa mel ni cat da laa commencé. waaw sant yàlla rek lu yàlla tudd moom kenn mun ci dara ndogal la te ndogal du wees sama rakk la suma deret la suñ ko téyee dafa mel ni man lañ téye démb. daan ko convoqué police su Guédiawaye sama rakk la amal tamit problème ndax ki mu amal problème tam suma rakk la booy bu yaru booy bu baax sama booy la vraiment waaye nag yàlla baax na euh, li ma ci war a dox man dox naa ko ci ndax bi coow li amee wax naa ci dem naa ci booy wax ak moom wax ak kii comprendre nga oh, yaakaaroon naa du egsi fii daal yaakaaroon naa du egsi fii ndax màggat suma rakk la suma deret la maa ko yar xamul kenn ku dul man ak nu munta mel suma rakk la nu mu munta mel suma rakk la ndogal nag du wees suñ ko téye mel na ne man lan suñ ko mel na ne man lan téye waaye yàlla buur bu baax la saamet laa jóge nii léegi-léegi maa ngi doog a ñëw parce que fa laa yendu waaw démb lan ko convoqué polisu Guédiawaye mu ñëw fekk man juste nekkuma fi dama génnoon dama xëyit dem dafa ma woo bi ñu koy convoqué mu woo ma ma daal di ñëw fekk ñëwagunu ma woo ko téléphone ba euh, ki amal problème sax maa ngi koy romb di ko tooñ naan ko boy demoo ñoo ngi maa ngi nii dem police ba de ñoo ngi nii comme que xanaa danañ convoqué leen bu mu ne maa ngi ñëw ma daal ñëw ñëwagunu fekk ma war a am uh, yu ma war a dox doxi Dakar ma génn ma daal dem dakaar bi ma nekkee dakaar mu woo ma téléphone woo ma dama foo nekk ma ne ko maa ngi ñëw avant may ñëw mu ne ma tàppe nan dossier yi ma ne ko oh ok léegi après bi ma waxee loolu uh, ma daal di ñëw ci diggante bi ma daal di ñëw bi ma ñëwee fekk mu ne ma jàllale na ko ñoo ngi nii dem terminal bu Géejawaay ma dem terminal ba bi ma demee terminal ba gis naa ko gis naa kilifa yi te waxtaan naa ak ñoom expliqué nañ ma ne dañ koy jàllale ba mardi lay taxaw waaye nag yàlla buur bu baax la daal. yàlla buur bu baax la. problème ay wax la rek ay wax la màgget nee na booy bee ko njëkk a wax mu tontu ko mm-hmm. booy bi nag nee na moom moo ko njëkk a wax. comprendre nga Maguette ko euh, njëkk a wax moo ko tëb wax ko loolu waaye moom euh, màgget nee na moom euh, ci lim ma wax nee na ma ki mu amul problème muy laay sama booy la nee na laay ko njëkk wax loolu comprendre nga waaw xam rafetul daal comprendre affaire xam nga ay affaire góor jigéen ak yooyu comprendre nga affaire góor jigéen comprendre voilà ba loolu bi amee sax tudd na ci jéey loolu moo tax xañ na affaire bi demee nii laay mi ànd ak jéey laay mi ànd ak jéey waaw non ku baax la su ma rakk la ñoo jàkkaarloo ko suma booy la jantal booy la amul problème uh-huh. waaw léegi su doon man moom rek man xam naa ni du demee nii du àgg fii uh-huh. du àgg fii waaye xañ dafa am leneen lu ci laxasu si biir comprendre nga waaye nag yàlla baax na daal ndax euh, mënuma cee sori mënuma cee sori sama xol neexul oh. ndax tey jii lu ne maa koy dégg lu ne maa ngi koy dégg suñu waxee ñu ne man complexe laa ci te man demewul noonu Maguette suma rek la. ndeysaan ndeysaan gis ngeen xolam moo moo moo tooy ah Ndeye ndax tamit Maguette Seck rakkam la moo am ak problème ak ñi nga xam te ne nañoo wax ni mook jéey ñooy ànd te moom tuddee na jéey doom xam nga oh oh liir bul jooy waay ndeysaan lu liir ah àdduna amul solo àdduna amul solo ah gis nga ndeysaan àdduna amul solo nday Mbacke ah àdduna amul solo liir bul jooy liir bul jooy deret dafa foor oh liir bul def nii waay liir bul def nii waaw boo defee nii nan la Maguette Seck di def masa masa oh massa massa xol bi moo fees bàyyi leen mu génne ci xol bi massa massa massa ndeysaan xaar may ko ñun ñëpp voilà yàlla baax na yàlla na ni yàlla suturaal te mosuñu cat ak làmmeñ jërëjëf nan bàyyi ba beneen yoon après nga ñëw ñu wax def émission ñu wax ci xale yi ok ñëpp ñoom guy geeg tout ñoom la rek yëpp voilà incha allah rem ndax la dëgër ko am ñoo noo pare waaw ñoo ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam li ma bëggoon a wax dëgg-dëgg waxuma ko daal nan bàyyi mu set voilà sant yàlla rek yàlla baax na te tamit coow li ma dégg gars yi ku nekk di yëkkat sa làmmiñ di wax ci diggante Aziz Ndiaye ak soxnaam yi nañ ci téye seen làmmiñ téye seen gat seen yoon nekku ci nañ képpe seen affaire problème mu jàmm yoon kenn nekku ci te ban problème moo fa am ban problème moo fi am ah? ñu bon ak ñu soxor ñu dong ñoo koy def di topp di wax lu wax ju ñaaw ah kii takk na soxnaam lan moo ciy wax ju bari ji lan moo ciy indi wax ju bari ji fii fii la jàmbur seen yoonu kenn nekkut ku nekk am na sa bu ne weng sa kër te lijjanti woo ko lan bàyyi nit ñi wax ji lan bàyyi wax ji ay kilifa fi def lu bon lu ñaaw te kenn waxu ko nañ ñu dimbali waaye lan bàyyi jàmbur ah lan bàyyi wax bu ñaaw wax bu ñaaw baaxul ah kilifa la moo gën su ko tey am na droit takk soxna am na droit takk ba ñeent ah lan mooy wax ji léegi lan mooy wax ji ah lan mooy wax ji c'est honte. c'est honte guy gi mu jël kii na Arafas. moo wax loolu. Ah, eh, kan moo wax loolu ay guy gi waru ko woon jël pourquoi waru ko woon jël. day liggéey moo gën mu toog bañ a ñàkk bañ a bëre. Mm. day liggéey moo gën mu toog bañ a bëre. Mm. moo gën mu toog bañ a bëre. Ada Fass prouvé na daan na sos barki dem yàlla may ko mbool ban risque lan moo fa nekkee risque guy gi su ko sos mu ne yëngal su yóbbu mu bàyyi bëre guy gi su ko sos euh, booy bi mu ne yëngal Ada su yóbbu mu bàyyi bëre lan la guy gi di xale bu ndaw bu tuuti ñu bëgg ko màggetloo nan bàyyi wax waxu ñaaw ko bëre daanu rek ku nekk yëkkat sa làmmeñ di ratatati di wax nan ko bàyyi loolu baaxul yéen dama xamul soxor la xaw ma iñaan la koo ma iñaan ci la bu nekk ci yoon làmb nekk dafay am tolof tolof ba muy bëree euh, rërëg euh, tànkam dafa amoon problème tànkam dafa amoon problème mu bëree mu daan ko ku nekk ñu bëgg ko màggat loo dañ bàyyi loolu loolu baaxul loolu baaxul dañ bàyyi wax bu ñaaw guy gi xale bu ndaw la guy gi su ko aada fas mën a yëngal soobu mu waayi bëre man maa la wax lii man ku ko wax waxul lu am c'est pas vrai c'est faux lan mooy loolu ban jàpp ba ba suba yàlla nañ ci yëpp Ada la tey prouvé moo mbooloo mi moo tax guy gi nangoo bëre ak moom mm-hmm. voilà promoteurs yi ñoo yor seen xaaj ñooy tëgg tey jii suñu bëggoon yeneen adverse ak guy gi mën nañoo ba tëgg ñeneen waaye Ada Fass lan euh, lan jibile tëggu ko ak guy gi surtout loolu jarul wax. ne dégg nañu Ada ne xaas moom ko jëlal bi jëlal jëlal jël. waaw léegi su fekkee xaas dana ko jëlal ndax li mu faral mu faral Ada mm. dafa juum. Mm. waaw ndax moo guy gi ay xarit lan Ada waaye xamul ki muy bëral nag surtout. barki Serigne Fallou xamul la de xamu ko xamu ko. Mm-hmm. xam comme que sa xol neexul dañ ko comme que sa xol nga ko doon raaxaale nii rek wax dëgg yàlla di ñaanal xale yëpp yàlla may leen ndam di ko ñaanal moom it la dëgër yàlla may ko ndam mhm. ndam lu sedd guy vraiment te di ñaan yàlla géejëway gépp nañu jàpp jàppale ko ndax Siteu waru ko ëppale mbooloo ci stade te du ko ëppale mbooloo sooba yàlla mhm. dégg naa na ngóor soo dëkk caaro yi lu ne mi ngi koy wax lu ne mi ngi koy wax waaye kooku man waxam euh, mi ngi mel ni nu ngi koy waxatee kuy nga ci foos bee laa ko jàppee mm. Ali Boulo Ali Boulo moom laa ko jàppee ay waxam. moom laa ko jàpp ndax xamul tax. su li muy wax ni gëmu ko. li muy wax moom gëmu ko. barki Serigne Fallou Mbacke li muy wax gëmu ko. Lac de Guiers mii ma gis. Lac de Guiers mii ma ñu fi jaar bari na ci moom de. si da nee baax na boobu yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm man daal li may ñaan. Hmm. géejawaay gépp nañ génn fu supporter am génn su boobaa nañ ko jàppale bu ko Siteu yóbbal dara ci stade bi géejawaay gépp jàppale ko. Géejawaay gépp jàppale ko ndax promoteur bi ko tëgg sunu frère la Mansour Ba mu nekk xale bu yaru di ko ñaanal bisam bi li mu ci bëgg yàlla na ko yàlla defal waaw Mansour Ba ñoo ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ci bisam boobu yàlla na ko si yàlla defal jàmm voilà aman mbégte contentement pour yéen doon suivre sur ak euh, seen lamb liiru jàll lañ seet si woon ah xaar ma xaar ma kii xaar ma ñu xaar xaar ma ma ñu donc lay wax Mbaye Diop ndeysaan dafa dégg problème bi sama waay la boobu léegi mi ngi may woo ñi may woo vraiment bari na comme comprendre bi ñu déggee problème ba léegi ñoo ngi may woo vraiment maasu tamit moomu noonu woo na ma comprendre nga. Euh, at kii nu mu tuddati euh, euh, Guèye Ndiaye suma rakk ji vraiment borom feer yi ndeysaan ñoo ngi may woo boobu ba léegi daal waaye yàlla na ci yàlla def jàmm du nuyu sama gaay yi ñëpp ñes diaspora bi ñëpp tey daal sama xol moo neexul nan ko yemale foofu rek beneen yoon incha allah ndax li nu war a wax waxaguñ ko ndax kombaa bi ñëw na ba la de guerre Siteu ñëw na ba pare day ñëw def ci émission bu yaatu. ndax dégg naa waaj waaju nekk caaro yi nga xam ne mooy loolu. dégg naa ko muy wax rek te li muy wax gëmu ci dara dara dara day sóob rek kenn xamul fu mu far li muy wax gëmu ci dara dara dara dara dara di ñaanal la de yàlla may ko ndam lu sedd guyu di ñaanal xale yi war a bëre tamit le 12 bi ci Baye Ndiaye. caatu daaw da faal ndigal di ko ñaanal. Euh, Mathia Perera Ah, at at kan ah, at marle ak Marley yaa ay ci loolu Marley ci loolu buusa tam da ciy bëre. Mm. di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm. Mm. te yàlla may leen ndam lu sedd guy ci combat bi. Mm. waa ah, gàkko deux tam combat bi ñëpp waajal ko waa Guédiawaye gépp waajal ko. ndax xam ni ah làmb jooju du yomb. du yomb déedéet du yomb. waaw ñëpp nañ ko jàppale ndax xale yi loolu rek lañ am ñun autorité nekk Guédiawaye lii rek lañ mën a jàppale xale yi ñu am bis ñu jënd leen ay billets. du ñaanal suñu ministre bees bi yàlla defal ko jàmm mu ngi doon jàppale xale yi sax waaye bëgg naa mu gën leen a jàppale te dina ci jàpp xam naa ni combat ñaa bu ndaw bi nga xam dimanche lay bëre ñu jàppale ko bu baax a baax ba vraiment mu wone boppam ci stade bi bëgg naa loolu ndax li mu def nii fii démb teemaa soke teemaa soke waaw waaw dafa ma décoré teemaa soke teema soke su dimanche jàmm yàlla na ma joxee noonu drapeau bi ci dara sëñ Fallu Mbàkke day ñëw fekk lépp leer màgget génn incha allah rabbi voilà màgget génn incha allah rabbi yàlla baax na amin yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def jërëjëf kontaan naa ci yow yàlla jërëjëf merci tey sama xol neexul jooloo nga ma fi nag waaw non sama xol neexul Fatou barke dama laa bëgg ba bëgguma gis ngay jooy Fatma Dia billaahi wallaahi wa sama xol neexul soo dugaat dinaa jooy non soo fa dugaat dinaa jooy ndax xamul non soo fa duggee dinaa jooy ndax xamul dafa Fatou mm-hmm. dafa doy waar daal dimbali ma rek bu déclenché woon dimbali ma rek maa ngi ko ñaan. barki Serigne Fallou Mbacké billaahi wallaahi sama xol moo neexul. nañ ko fi dëkk bala ngay jooy.